li ma jaaxle foofu mooy loo xam ne dégg naa sëñ Muntaxa Gey nettali ko wax ne sëñ Saalihu la masa laaj ne ko waaw ndax murit dugg sawara sëñ bi ne ko murit de du dugg sawara waaye nag àjjana it lu bon du fa dugg ne ko képp koo xam ne yor nga lenn ci ak ngoon des na la fóot ne sëñ bi sëñ Cheikh da caa teg ne ko malaka malaaka nag yan yàlla musal mom fotu malaka yan yàlla musal ci fotu malaka ci aduna wala alaxira malaka yi dañu am doole te it dañu bari katan sëñ Touba wax na ne yat wi ñu yor ci diko door nit ñi ci bir suuf ci buñ buñ duggee ci suuf ci buñ len buñ len suulee yat ne nit ñepp buñ maasoon bu ko pousse duñ ko mëna pousse te kooku ku kuñ nar a fóot foofu lañ lay fóote yàlla na musal ci moomu